ziar ziaratan mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo eh, di leen wax ne tey si dañ déplacé wa ñëw ba fii ci eh, Lansar seen émission après combat seen émission après combat tey ñu ngi ñëw seet kan Daouda Sandwich le petit frère de Feugeleu le grand frère de Modou Feugeleu le frère de Pape Touré moom lañ ñëw seet si tey fas mum si xëy moom waxtaan ak moom ci carrière am fi mu jóge fi mu jaar fi mu toll fi mu jëm sama yi kan Daouda Sandwich ak combat bi mu

leen xamal ne xëy na li am dañ koy santé suñu borom rek xam ne ba ñuy dem yóbbuwuñ woon loolu mm-hmm. kon duñ koy indee dañ koy sante yàlla suñu borom bu baax baax xam ko yàlla may nañoo xoolu muñ ko mm-hmm. sant yàlla bu baax sant yàlla loolooy nuyoo bi loolooy nuyoo bi Dave euh, dev dama ñëw directement ci combat bi hein, parce que dañ ne après combat dañ ne émission après combat donc damay ñëw directement ci combat bi euh, palmarès bi rafet na combien d'années d'années 4 ans ou 5 ans 5 ans. 5, ans. ans. 5 ans. Si moi, je me dis, je suis venu à l'époque, je suis venu à Je m'en souviens. Je me la photo, il s'est dit, c'est un coup. Je me suis dit, je suis venu à l'époque. Ça remonte à 5 ans. Kon, tu as 2 ans dans nous, ça, exploit Mais tu as 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'années, nous, c'est un exploit remarquable. Si nous avons un peu de temps, Aussi, c'est une question de drame, c'est ce que je veux dire. que man moom booy xam nañ man li ma sentir moom laay wax yaa ngi may dégg euh, palmarès bi nekk palmarès bu remarquable démb nga bëre à l'arène nationale sa diggante ak Mbacke fay am na ñu wax ne sax da bi ngay jël Mbacke fay da kaa gees am na ñu wax ne da nga ko may sens am na ñu wax ne woon moom moo nekkoon sa potentiel adversaire mais moom nga jël jël nga ko bëre ak moom à l'arène nationale démb nga ñàkk nga ñàkk combat bi mu doon mu jëlee la kaw maanaam defet bi dalaa jële kaw dalaa maanaam xalaatoo woon daanu xalaatoo woon ne Mbacke fay mën na la daan pourtant Mbacke Faye c'est un lutteur c'est un gosse boo xam ne mi ngi ci làmb waaw c'est un boo xam ne mi ngi ci làmb di ko ñafe aussi bëgg a am dara ci làmb ñeme entrenement entraînement Mbacke Faye ñeme entrenement moom yoonam dafa dëgër moom Mbacke Faye ci boppam yoonam dafa dëgër c'est début da daan bëre daan daanu des fois mu dem du du bëre daanu quelque chose comme ça mais il s'est rattrapé liggéey na entraîné na ba taxaw daf ñàbb ñu ne ko Daouda Sandwich mi ngi nii mu xam li lii sansam la mu jël ko ñëw bëre daan mais yow lan mo la xañ ci li nga jàpp waaw xeyna na dëgg la war a la rek ñàkk mbaa nga fay du won sax sama yoon du won sa yoon du won sax sama yoon mais mbeuri dañuy moytonte ñu teggi dañuy teggi dañuy moytonte ku hmm. ñu mënta daan duñ sawar ci yow ku ñu mënta daan duñ sawar ci say mbir Mbacké Faye nag moo ma jël suñu borom may ko ndam ma koy ñaanal ndam bi jikko lool sax ndeysaan sax mu nekk booy bu kuul moom tamit mu nekk booy bu kuul kuul booy waaw di ñaan yàlla ndam bi jikko jantal booy sax waaw xëy na dëgg la làmb ji na ma méttiwu ma parce que métti na la métti na la métti na la métti na la sañoon mhm. da ngay bëre tout le temps waaw mais ñun ay ndaw lañ mhm. maanaam mbër yi dañuy moytante te ñun mënuñu toog koy répété waat mbëri dañuy moytoon te ñun tamit mënuñu toog benn laps temps toog ay yées yées yées te doo bëri amul solo amul sens kon moom zéro amul sens amul sens non dañ ne mbër bëri waaw buñ ne mbër rek bëree moo tax mbër mi toog te bëriwul moom moom moom ak moom ak keneen moom voilà voilà ku mbër bi toog te bëriwul mën naa du mbër donc euh, mbër bëri mais aussi lamb dafa am yoon mais wax nga ko léegi répété waat ko mm-hmm. mbër yi dañuy moytonte ñan ñoo nekkoon say adversaire man maa ngi Ziza waaw bu Pikine waaw waaw waroon bëre man ak moom si combat Ama Baldé Modou Lo waaw waaw waaw waaw waaw Ziza yàqu taxawoon na taxawoon na bañ jot suñuy avance laa mu ji yàqu ba mu des quelques quelques moins de deux semaines laa mu ji yàqu euh, booy ñaangi ci la waroon bëre ak Valdo ok noonu la fa demee làmb ji dem ba desul mhm. ba desul lu dul quelques quelques moins de deux semaines ñu ne lamb ji yàqu na mais boobu taxawoon na mais ak Ziza c'est ton potentiel euh, adversaire parce que Ziza maa gënoon soxla woon sax mbaa nga bëri moo ñu boole rek ak bañ a toog bëri woo kese moo ñu boole mais du palmarès du lenn kan nga mujjee daan usine nangal ma nga mujjee daan ki laa mujjee euh, bu diis loo sóod loo sóod loo sóod loo sóod bu yaraax loo sóod bu yaraax moom nga mujjee daan waaw si boobu usine bu nangal moom moo bëri ak yan bu diis yow nga bëree daan loo sóod daan ko jël bu rëy xam nga loo chef. loo xam naa tuuti laay. xam nga tuuti. xam nga xam nga ñi mu daan xam nga ñi mu daan. Hmm. kon yow xamoon nga ñi mu daan. Eh, bi nga jógee certificat ñaata ñaata victoire nga tegale bi nga jugee jógee certificat sa diggante ak seen kumpa. cinq cinq victoire nga tegale. cinq laa tegale ma ne bi. nga ñëw bëre bi daanu. waaw mais mais nag mais nag def nag def nag def yenn yi nag man je comprends pas quoi yow nan ngay enchaîner cinq victoire. am benn défaite rek mel ni àdduna bi day këpp sa kaw. nga dem nga nga tardel ñu suñu liggéey stade nga metti lu ko affaire yi ñoo di damay metti xam la ma dama metti ma hmm. tay da am ñu taxaw ñu bari hmm. taxaw na def du mbeur bandi la ok def du mbeur bandi la da ngay dégg loolu lay def du mbeur bobu loolu hmm. man motax lu ci ëpp damay ray suma bobu motax bo amé combat da ngay ray sa bop damay ray sama bop man duma nekkon benen écrit benen écrit benen écrit la la wax benen écrit duma fa nekkon man man kon ay booy Ada Fass yi ngay dégg nii yëpp doo leen dégg. dafa am lu la métti sa équipe bi nga nekk. lu ma métti daa bëri si équipe moo nekk. wax ko wax ko. la moo la ñoo tegul ñun fi ñu war a teg. dañ tegul fi ñu war a teg ñu war a teg. teguñu ñun fu ñu war a teg. je vais dire ay jàmbur ñoo leen gënal seen i doom ak seen i sët. jaaduwul. bàyyi kenn ñoom ñëpp man maa wax man ay jàmbur. Mhm. ñoo leen gënal seen doom ak seen i sët. boo na ñoom mooy ñan mais dëkk bi ma dëkk nii muy lamsaar fii ñu ko doon séddalee damay am waaw damay am ëppale wuñ ma fi dara sama yaay fi la juddoo fi lay màggee man fi laa juddoo fi laa màggee ay titre foncier lañ fi am sama papa la fi am ëppale wuñu ma fi dara mën nañ maa xañ nag mais yàlla duma ma xañ tant que xëgala mi ngi nooy yàlla duma ma xañ xëgala daam sama mag kooku tey tey moom mooy moom mooy papa. mooy suma mooy suma lépp moo ma taxaw si lépp moo ma defal lépp Modou Feugeula nee na ne ko naa mu ne ma Feugeula mooy sama papa man sama papa mooy suma papa mooy sama papa kaay lépp defal kaay kaay ceeneen noonu li ceeneen lépp moo ma ko defal Feugeula lépp waaw mais bu ko defee def na def na ñu ko wa mag la moom mooy taawu gàlle bi moo ko dund mais ñoom duñ yaakaar ne ñoom sama wërsëg ñoo ko yoon ndax nañ seen bopp boo na ñoom mooy ñan lamsaar képp laa la wax képp kuy tax ngeem nekk biir lamsaar képp kuy tax ngeem nekk dirigeant lamsaar mhm. mënuñu moo teree dem si làmb képp kuy dirigeant écurie lamsaar képp kuy tax ngeem nekk biir lamsaar non non non képp kuy dirigeant nekk biir lamsaar waaw mais ñii bàyyiwuma Zane bàyyiwuma Paul bàyyiwuma Samba bàyyiwuma Demba. Dave je vais dire une chose xam nga man man man damay man je pose mes questions. man boo waxee lu ma gëmul dama naan def li ngay wax nii gëmuma ko. dama ne la man Daouda Touré télé laay waxee ma si mbedd de télé laay wax. da nga am la métti. dama am lu ma métti man sama bopp xam ko man du ma bëree mbër laa du ma bëriwul mbër laa man maay un mbër mu fi teg li dix combats benn defet Lam Sarr man maa fi def. yow deux défaites nga am maanaam benn défaite deux défaites nga am sa carrière. tey moo ko deuxième rek seen kumba amoo daal. kumba amul nga beneen défaite. amul booy bul ma bul ma réeral booy avant seen kumba mës nga am beneen défaite. bu ñu réer fiskaay bu ñu réer. ah bu ñu réer ceena ceena ni waaye kaay ceena ceena ni. bu ñu réer toog toogal li bàyyi ko mu toog waaw waaw ba tey ba tey kaay toog ni yow. waaw léegi waaw léegi euh, def gis nga nag xolal xolal xolal gis nga gis nga booy wax da ngay wax loo xam ne dafay am ay preuve man dèjà boo fi nekk naa ma ay mbër da am problème ak mbëri aw ma problème ak benn waaw c'est quoi le problème aw ma problème ak kenn waaw mais nee nga dirigeant yi yoralu ma kenn boor hmm. kenn yoralu ma bor d'accord tooñu ma kenn kenn tooñu ma aw ma sens interdit fenn d'accord ma neex dem ma neex laay mais dama ne man daara maa ko wax waaw waxal du ma bëree mbër laa du ma bëreewul mbër laa ok boo bëree mbër nga boo bëreewul mbër waaw léegi léegi nit kuy nooy waaw si kaw suuf waaw mënu maa tere sori si làmb kuy nooy si kaw suuf fëgala mi ngi nooy tant que fëgala mi ngi waaw yàlla yàlla yàlla yàlla dund bët ba ay mayam di baawaan yàlla na dund bët waaw mooy loolu man man fëgal sama sama sama waaw xol bu naas la yor aussi bu taxawee ci famille bi taxaw position wu papa loolu moo ko war loolu moo ko war ay rakam ñu ngi bëre tey daaw de sandwich rakku fëgala la lamb ji ci fëgal lay dellu dara dugg si Moodu fëgala rakku fëgala ci fëgala lay dellu lamb ji sama dara dugg si waaw sama dërëm dugg si sama xaalis maa ko lekkal sama bopp d'accord léegi bala ñu ñëw ci fëgala yow waarkat nga man je te connais très bien jayuma la yow da ngay dóor waar mhm. bu la xam-xam la ci nangoo ñefe mais def xam nga gaay lan lañ lay xam nga gaay lan lañ lay jëwee waaw ne nañ def respecté wul entraînement waaw mën nañ koo wax mais mais loolu am na loolu dëgg la waaw mais loolu duñ ko waxee ñoom ñoo ko gis non mais loolu am na respecté wu entraînement yow li nga gëm mooy mën nga bëri bandi géew nga am nga fit c'est tout mais yow respecté wu entraînement comme ni ko war a respecté sax xëy na ñoom déedéet sa mag fafoo fi taxaw fii léegi léegi bi ñu buntu gaal dafa mën a gaan ma ne ko naa mu ne ma dee bu dee sa gaan la ne ko na respecté entraînement waaw mën na wax loolu am na mbiru ma wax loolu waaw mbëri dañu wax loolu ne ma grand bi ma ne ko ma dee na respecté entraînement waaw mbëri nañ waaw ñoom loolu ñoom la mais man li ma gëm mooy lan waaw lamsaar fii nii waaw ñoo fi nekk ñun ñëpp di tax ngeem mhm. parce que Cheikhul Khadim mbër du fi lu ma amul mbër du fi yor lu ma yorul mbër di fi jóg te jóguma lamsaar gii buñ ko gëmee moo am buñ ko gëmul moo am muy mbër di dirigeant di ñëpp nit mënu maa xañ moo ma léegi léegi pour yow say soppe wala d léegi disoo dégg démb mbër yi la yóbbu stade ñan la Abou Niasse moo la yóbbu Balla Gaye ñoo taxe Abou Niasse moo ma yóbbu Abou Niasse doomu fëgg la maa moom kon ñoo bokk papa waaw waaw taxe sama seex la taxe waa dak mais taxe mosul sumeeku taxaw ci géew ñu ne entraîné wul a sama seex la Abou taxaw ci géew ñu ne kii dafa manqué entraînement waaw loolu am na fils de Max waaw Fallou sumeeku taxaw ci géew ñu ne kii dafa manqué entraînement waaw waaw léegi mais yow loolu yow lañ ko wax waaw léegi yow loolu man lañ ko wax nangu naa loolu ñu ma wax dëgg la coo jubul mais yow la ban lamb laa sumeeku aw moom xaw nga faible moom ñu waxantee dëgg coo jubul bii moom faible nga coo jubul bii moom xaw ma da nga entraîné ba caas xaw ma bii da nga faible coo jubul nangu bésu ñaax du ñëwee ñaax la loo mën a def dara du feeñ waaw léegi yow na serait-ce yow pour say soppe ñu la bëgg di la ciitaro est-ce que léegi yow tamit doo xat sa tànk tubéy nga respecté entraînement bu dee kay bëgg nga làmb képp kuy bëgg daalo sandwich laa la wax waaw képp kuy bëgg daalo sandwich képp ku mën a doon waaw barki Cheikhul Khadim zibileel ndamul xam ni mbër kaamil ngay am macha allah macha allah xëy na nag jaar nañ benn yoon baaxul mhm. ñuy bàyyi yoon boobu jaar si beneen yoon jaar nañ yoon boobu baaxul dañuy bàyyi jaar si beneen yoon man képp ku may bëggee du la neexee taxawal fu la neex def lu la neex wax lu la neex taxaw ne mbër nga yor te dama koy dëggal mhm. man mbër laa am maam Cheikh boo ko ci famille famille na dëgg la nag ci famille laa ma nga juddoo ah. nag mhm. na métti torop mhm. dinañ ko bañ dinañ siisu dinañ def lu leen neex ñenn ñi ñenn ñi mais tund dëkk bii lamsaar Tiwaawan bii ñu nekk ñii barki serigne mbamba iya. mbake mbeur duma fi ëpp tu fi mbeur du fi dugal luma fi oh, dugalul au contraire ñom luñu ñak ñom mënuñ ko fay dugal man dama ko fi dugal man ci carton suñu borom duma yalla rayul lu may ya, jaral du len ko jaral jëm lan la lay jaral entraînement entraîner ba dé moy première chose waaw entraîner ba dé moy première chose waaw waaw c'est que beure bi mi ngi fi mhm. fit bi mi ngi fi entraîner mhm. ray sa bop deugantal bo sumé ko taxaw ci gëw gaay na def mi reena bopam ci entraînement waaw mais man gor yalla la man après man amul lu góor yàlla di def te du ma ko def amul lu góor yàlla di def te du ma ko daj amul góor yàlla fit bi mu am te aw ma ko amul góor yàlla fit bi mi ngi fi bëre bi mi ngi fi mais respecté entraînement bi moom lañ lay jëwee dama ne la lañ may jëwee ñoom waaw léegi dama leen ñaan waaw li ma jógee nii maa leen masaw di leen jéggalu kay man say soppe laa la wax de say soppe ñoo lay jëwee ni respecté wu entraînement déglu ma rek ma wax la ba ci sa frère Pape mi jógee fii léegi léegi sama nijaay léegi la ma ko wax man aaya ah, sama nijaay léegi la ma ko wax kon man daw ma loolu dama ne la waaw képp kuy bëgg daaw la mhm.

moo ma ëmb yóbbu ma Moussa Moussa Ndiaye Moussa coach Moussa Ndiaye addunaal coach moo ma ëmb yóbbu ma waaw yaa ngi dégg maa ngi dégg ñu am ñu suñu borom jagleel ñu sante ko ko ànd ñibbisi mhm. Maxime Argan conseil na ma mhm. nangu naa ko mhm. ñoom ñëpp lu ñu war a def ku nekk lu mu war a def si man jàpp ne lii laa war a si daal def na ko mais man dama ne la képp kuy dirigeant écurie Lamsar képp kuy mbëru écurie Lamsar di taxaw japp ne daaru dumbeur bande la mhm. damay sori ci lamb tank feugal mi ngi noy de nga wal degoma de nga wal degoma degna la degna la dañoo jël ay nit ay nit nit nit tek len sama kaw ñuy wax may deg ñuy jëf may deg ñuy gis may deg may démé tek parce que nek na doomu gaynde go xamanteni kuy goor yalla ci ko suuf sañul jaaxaar man duma wax li may wax man képp ku ma jëw nag maa fekk may nelaw. mais yow de am lu ma métti si ñoom ñooñu ñoom ñooñu ñëpp damaa am lu ma métti si ñoom. mais nekk lu ma leen di wax. daa nekk loo xamante ne dama koy jëf ñuy gis. daal dumbal bandi la nañ seetaan bandi bi mais man man sa bandi gisuma ko. waaw ñoom ñoo ko gis. man ñoom taxaw tund hmm. bi. ñoom ñu taxaw dëgg. non non teel micro taxaw yor gerte gi. di jiital am xar yu ñuy jiital ak xar yu ñu jiital. waaw loolu ñoom la. mais man kuy laa man ku jiitu ma jiitu ku jiitul ma jiitu Daouda bandi la man sa bandi gisuma ko. ñoom xam ñoom Daouda. man depuis ba nga xamante ni bii nga ma woon. man dama lay ku may bëggee si gil naa la. man képp ku may bëggee si gil naa mhm. man du la neexee mën ngaa taxaw lim samay defet man du la neexee mën ngaa taxaw lim samay victoire. mais dama leen a bëgg a xamal lenn ñu xam ko. Mhm. lamb yi ku dul daanu amul. amul ku dul daanu. amul ku dul daanu. waaw léegi est sa mag daanu 18 victoire la teg la soog daanu. xanaa du kon kookoo bëri victoire. mais ñàkk na ay combat de. ñàkk na ay combat mais ñàkk bariwul tamit de. ñàkk na ay combat yoo xam ne waru ko woon ñàkk. ba muy ñàkk ay làmb. sa sa grand bu jëlee combat ñu ne tey mu dee. bu demee daan bu jëlee combat ñu ne eh moo mën waa ji bu demee daan. Ibakaan bu suñu làmb Ibakaan. waaw <laughs> laaj ko kuy fëgal. non man xam naa fëgal la victoire askanu làmb képp kuy tax ngeen mu lim ay victoire am. depuis ci classe bi diggante ak ñoom Dolfo lépp ñoo ñoom fi yaakaar naa ne ba mu limee benn. ba mhm. mu limee benn. limaat ñaar fëgal la moo ngi. fëgal la digganteem ak Birahim Birahim Birahim de dañu woon tey mu dee dañ woon du am dara. Mhm. fukki combat du am jël ba mu demee lu mu fa demee kawo loolu ñooñu di joob noonu nag. waaw loolu ñu doon joob si fëgg la. waaw gaynde gu si mhm. si man gaynde gu si doon joob si moom. naan combat bi du demee dañ koy rey. Mhm. man combat yi ma ne ma siy génn. lu si mag bi mu ngi si rajo bi. mais lii du amee dama koy sant suñu borom. waaw léegi yow mais def maa ma sama jàmm def yow dafa mel ni dafa mel ni defet bi moo la metti nga toog fi di. waaw ma waaw mais mais mais kuy bëre mooy daanu. waaw man daanuwuma. nangu naa kuy bëre mooy daanu. waaw léegi c'est quoi le problème ñaata fi daan. waaw. mais démb daa nekk woon bésu ñaar yow nee nga 10 victoire. démb du woon bésu daanu 10 victoire 2 du woon bésu daanu. Arafas palmarès su ñaata la. 10 victoire 2 défaites la. Arafas ay morom lañ. waaw. ay waaw. Arafas est-ce que ëpp na ma victoire. 10 victoire la am 2 défaites. waaw Arafas. kon maa moom naa kon waaw maa léegi tey jii ni ñoom noonu noonu noonu écrit yi ñu nekk dañ leen a fulaal faydaal leen ñu écrit bu ñu nekk fulaal luñ ñu faydaal luñ ñu teguñu ñu sax ñuy mbër ñu nekk si biir lañ gën a teg ay nit ñu ñu dëkk si biir dëkk bi te ñun duñ demee duñ amee ndam fi leen jëm si duñ ñàkkee ndam fi leen jëm si écrit bi amoon quatre si gëmuñu ñu mais man ma gëm ma gëm sam bopp ku ma gëm ma gëm sam bopp jëgguma ni sax ñoom ñu ngi fonctionné maay demal sam bopp waaw loolu moom loolu moom jaaduwul am am sa écurie am jël ñeneen di leen favoriser ci kaw say poulain loolu moom. dañ ko dund ma man mënuñu ma kaar man te duñ ma kar man maa ko te commencé ma tontu. waaye sa defante yi nag ay defante ay tontu ay yooyu noonu. yooyu musul nekk sama affaire ma defante defet bi su la méttee defet bi su la méttee xam nga mooy solution bi suba la lëndi nga teg ci brique dem entraîné ji. yaa na teg ci brique dem entraîné ji instant instant man man man du ma ñëwee laaj mu ne man yaa ngi noonu di dama ne naaj dama ne booy bi cool man pour ma xam la moo tax ma jaati pour man damay fekk nga lalu ci biir non comme ça su ma man génn ma de xam nga lu ma génnee waaw bamba moo ma génnee loolu moo jaadu bamba bu taalibe seen a seet saddu mhm. kooku ma génnee mhm. kooku laa ne woon tey duma ma tëdd si ma ko parce que daa des si man ay business yu garaaw mhm. si man sonn man daj coono kon kooku foo jaar dama ko war a gis moo ko aas lamb ji ñoom laa ko bëreel kon du ma ko perdee ñoom ñaar dama leen di yërëm as maa ngi koy sant bu baax a baax as as maa ngi koy sant bu baax grand boobu di ko ñaanal yàlla suñu borom baax ko ba si kanam guddal fanam amiin a baax amiin ba waaw a sa bopp ci làmb waaw mais du ma ne la bëgg di sonn ci yow ñooñu ñooñu dañu war a tax nga a ñafe xam nga tey ma wax la leen mhm. as du neexoon mhm. du neexoon tey jii nii ma bàyyi làmb waaw monsieur David eh eh affaire bi métti na ma bu de xam naa ne sa prochain combat boo sumee ko taxaw ci géew say supporters war nañoo kontaan nag. waaw xool rek yàlla baax na. léegi nañu xool. dañu liggéey rek ñu xool rek. non gars yi nañu xool nañu gisal seen bopp. xool xam nga dèjà liggéey bi nii affaire bi mi ngi enregistré. loo fi wax supporters yi dañu koy denc. yàlla def nee na prochain combat gars yi danañ gis. li nga liggéey lu métti. yàlla baax na nga ci nekk nga ci nekk. waaw parce que kan sa prochain adversaire. waaw yàlla maanaam rek ñu si lamb ji rek gars yi si ñu war bëreel xam nañ seen bopp rek yow xam nga leen mais yaa si daa ba léegi war na mën a nekk waaw mi ngi avance naa avance de war na mën a nekk na lekkoon na Modou Lo Modou Lo war na mën a nekk bëri waat la loolu par force la parce que si daa moom potentiel adversaire gaa la boo xam ne def na fi lu ne wengi bëri ak ay ndaanaan daan ko fi adversaire potentiel la waaw pendant ce euh, quelques adversaires non non ah mbër yi gaañ. loolu rek ñu war a bëri xam nañ seen bopp. Hmm. waaw d'accord mais la mooy se problème. lu fekk ay benn combat par saison benn combat par saison. Ah, loolu loolu loolu loolu loolu du ma si jabaawaat. mbër xam nga mbër wutalul boppam combat. ah mbër utalul boppam te mbër tamit taxawul seen seen naan damay bëre mbër taxawul ak promoteur naan damay bëre mbër daa am ñu ko yor. mbër parce ñu ko yor damay remarqué ay benn combat par saison ngay bëree yaa may dégg ay njaay laax fii benn combat par saison des fois toog deux ans doo bëree genre yooyu noonu loolu tamit ah, bo ah, pendant ce temps booy ay trois combats par saison exemple laa lay jox nii tey jii nii mm. xam nga doo duggee yegee si kaw nii gis nga xar yu bëri nga fay gis waaw mais doo dem foire da ngay tànn ñuy dem ak ñu dul dem waaw ah noonu la demee mm-hmm. waaw laa mujj tamit noonu lay fonctionné jamono ñu toll ñun suñu yëkkati noonu dem foire da ngay xool xar yi xool xar yu baax nga ni ñi ñooy dem foire yeneen xar yi nga tek na leen manam yëpp ñep ay xar lañ waaw te deug dëgg ñëpp ay xar lañ waaw ah, loolu nag moo am fii maanaam ça veut dire ñu ñu neex ñoy beure ñu leen neexul duñ beure kuñ bëgg a génne bëgg ta génne duñ la génne loolu mo fi am ne hmm. man ma ngi sant suma mag bu baax di sant père kii paye père kii ngañ jaay ngañ jaay xaw ma ngañ jaay damay plané turoo sama papa rek la koy wax mo tax fu mu nekk Medina la nekk si laa mujj doon nekk. mooy seen ngañ jaañ la wala ngañ jaañ la ngañ jaañ bu bu RFM. bu bu bu ITV. non kii la Bénazer la. kan la ci. ngañ jaañ la xaw ma Bénazer la dafa num sama kóoldu kii la moo la photo. Ah damay fàtte ci papa rek laa koy wax. foog sama kaañoo si ma koy woowee. kooku sama père la. sama père la maa ngi koy sant bu baax. Mbaye Diagne Mbaye Diagne. Mbaye Diagne manager. Bénazer Mbaye Diagne manager. bu baax koy sant bu baax a baax a baax. di ko bëggee bu baax di ko ñaanal jàmm bu baax. damay dégg damay dégg réparé di seere boobu mhm. maa ngi koy sant bu baax damay ko seere lu rafet yéen maa ngi bu baax di ko bëgg bu baax a baax père boobu mhm. di ko ñaanal yàlla guddal fanam nag barki maam Cheikh Fall bàyyi ko suñu kanam ba si kanam a kanam ak kanam su ma la déggee kon problème combat yow problème management nga am man maa ngi wutal sama bopp combat non man je management nga man maa ngi dem wutal sama bopp man dañ maa dañoo yor sama licence bi sa kan mooy sa licence Maxime Bargal mooy sama licence waaw dégg dégg wax day leer dama ne management nga am dama Wow. la Wow. man Wow. jii Wow. Wow. ma wutal sama Wow. combat Wow. du ma dem si kenn naan ko Wow. ma combat du ma woo benn promoteur di ko toog naan ko combat parce que sama licence dama ko yëkkati jox ko nit mu yor ko Maxime Bargal moo yor sama licence ok man tollu ma fu dua nekkee di wër promoteur naan ko dama bëgg a bëre wala may dem di wër man na sama licence ku yor sama licence nag mooy manager du wuti jee ñu jël du taxawee uti jiwul tamit ñu toog ba ci suñu war a jël ñu jël su mag mi ngi fi da siy jàpp père Mbaye Diagne mi ngi fi da siy jàpp mais Mbaye Diagne manager la mais kooku du ménage du sama manager sama papa la Mbaye du sama manager suma papa la maa ngi koy sant bu baax bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla suñu borom bàyyi ko fi ba si kanam ak kanam lamb ji ma wax ma bëre nit ñi fekk ko fi mais taxawu na ma woo na ma téléphone déggante na ak man période tabaski gi déggante na ak man te mënoon na si bañ a fekk comme sama ménagère sama papa la mooy sant bu baax du ko gërëm naa eskay du ko ñaanal jàmm ju waaw kon daal nangu nga ne problème management problème mu ménagère laa am moo tax instant bi mënu ma bëre toog ay deux ans trois ans quinze ne si làmb mënoo fexe ba dem fenn fan laa dem man daara sanni su ma turee am daara indi daara man làmb la laa si lan laa lekk si làmb man lu may def si làmb fu lu may lekk si làmb làmb lekk ma si fukki dërëm te man mbër gënu doon mbër tund bi dëkk bi amul ku fay taxaw di tax ngee ma gën maa doon mbër amul ci dëkk bi amul amul duñ téewoon terrain jaase barrière ko tëj ko crime am ñu jël licence yëpp teg si taabal parce que Cheikhul Khadim galaa mbër a dugg maay dugg man galaa mbër a dugg maay njëkk a dugg taxaw man duma bëree kamu laa duma bëreewul Kamu laa ku ma ko bëgg xañ e da ngay sonal sa bopp ku la ko bëgg xañ e day sonal sonal sa bopp laa la wax lan ngay wax kamu yi ñu waaj te di leen masaw di leen jéggalu di leen wax ne lu daan xam ko ko ci baax baax di jéggalu bu baax baax baax di xamal ngi yoon bi maa ngi ñëwaat maa ngi liggéey ngi amul leneen lu fi am. amul leneen bëgg a ñëpp nag. maa ngi ñëpp xamuñu def xamuñu def. waaw man xam nga ñëwoon naa temps yi passé ñu dem su fële soppale Padois sa gën bu mu waaw xaadim xaadim so ba lañ demoon jour boobu fa lañ toog def émission tey ñëw naa mhm. après combat mais beneen yoon damay ñëw ñu dem salle musculation a na coo jiwul bu dee yaa ngi entraîné xoolal dem salle musculation mooy fay salle bu dee mooy fay salle la salle bi fan la si ka mbaaw la si ka mbaaw waaw fa ngay entraîné waa léegi damay ñëw un jour ñu dem salle ñoo ñëw ñu dem ma ma filmer sa entraînement. waaw ngay entraîné mooy filmer. soo ñëwee ñu dem soo jubul. bilaa walaay bu ñu paree ñu sampaat defaat émission. waaw laa de. Hmm. non daal nu fa demee nii rek mais man vainqueur laa de. def boo liggéey jàmbaar booy ay jàmbaar lañ de. waaw booy ay booy tàng jër ñoo fi nekk ay classe ñoom Arafaas ñoo fi nekk ay ñoom Tafambër. Arafaas Tapha Tapha Mbeur moom dalee na tooñ moom Tapha Mbeur moom lim lim leen def métti na ma Tapha Mbeur lim leen def métti na ma seen ku ne la jàpp Liss Ndiago mu dégg la man daaw la waaw teel micro mu dégg la waaw du fekkoon ko si yoon waaw teg ko si cadre lamb teg ko si ko war a teg waaw waaw ñaar ñooñu duñ ma rëcc Ada Fass ak Tapha Mbeur trois lañ la rëcc trois lañ am na keneen kan la ki ci des kan la Ada Fass waaw Tapha Mbeur waaw rax-rax rouge Pam Ndoye. Pam Ndoye 2-0 la leen dóor 2-0 la leen lamba tërëdi. 2-0 la leen dóor mais ñetti ñooñu 2-0 la leen dóor. ma leen de. waaye yow dem de man liggéey naa man lu ma war a bëreeg ñetti ñooñu. man mais xëy na la. ci tel micro bi li ngay wax gars ko. lamba moo tërëdi rek. yow ku ku la woon instant bi ne avance euh, Pam Ndoye mi ngi ne nga jël ko. ma bëreeg ñoom ma doon ma avant Pape Ndoye laa la wax de Pape Ndoye rak Rock Rose waaw moo ñoom ñoom ñoom seen i ñoom dañoo gën a doon noobul suñuy staff ñun ah ñoom seen staff moo gën a doon noobul noobul suñuy staff man maa wax loolu looloo tax du ma jot si ñetti ñooñu mais ñetti ñooñu waruñu ma woon rëcc Ada Fass Tafa Mbër Pape def na gis nga liggéey mën a bandi bandi lu bés boo amee Tafa ci biir géew man bandi bandi lu non non bandi bandi bi ngay ñëw di ci biir kii en ah, VIP nga non li ngay bandi bandi ci biir géew biir géew bi ngay ñëw di booy xanaa xam du ma def dara gis nga Tapha Mbeur da jàpp gaay dur ñuy daanu dama biir géew waaw du ma fa def mbër dara damay ñëw te ko si yoon hmm. mais Tapha Mbeur dafa garaaw de dul biir géew hmm. ma dajeeg mbër daala mbër mënoo doon hmm. cat ma si kaw waaw moom ñu daje si nii man Daouda waxuma la autorité waxuma la autorité ci biir làmb laa la wax ñu fay ko fay la arbitre la génn seen diggante dama la de Tapha Mbeur laa lay wax de Tapha Mbeur laa lay wax nii de borom kaawo yi kat kaawo alaa la ñaari baat hmm. ñooñu noonu hmm. promoteur du ma woowoon hmm. wax ma seeni combat ma ak ñoom ma dugg ci néeg di ma ko wax de xam la la am baax na damay génne seen fay fët fët man ma bëree mbër laa du ma bëree mbër laa fëgg laay sama mag yow xanaa déggoo ma ah, du ma bëree ñoom du ma bëree sama mag may ma sama jàmm moo mu ne yow fëgala mooy sama mu ma man man lagrouse mooy sama ah, ne mbër def ko waaw ndamoo loolu waaw kon loolu dafa def lu ne wee ngi ci làmb ji mais moom tamit moom tamit magam li mu def nag sooba léegi déggantewuñ kan lu tax dama kaa dama kaa tooñ di ko masaw di ko jéegalu parce que làmb ji dasee def lu mës a def si bo daj ci lu mës a daj ñu fay ma xaalis mun a jël sa xaalis bàyyi ko si bitig loo soxla demal jël lépp maa ngi koy def dëgg bi huit cent sama xaalis def lu ma neex. fëgg la moom fëgg la moo la jëndal huit cent mille franc bii. def sama lamb ji nii daf maa métti man. waaw mais huit cent mille billets kooku kooku grand combat la war a bëri. ma ñàkkee nii daf maa eh, métti. demal huit cent jënd billets kooku grand combat la war a bëri. waaw mais mais Arafaas moom Arafaas neexal nii rek. non neexaluma ñoom moom non non eh, bu ñu doon mu ngi nii doo ko jël. waaw ah, ñoom du doo a tëj koy Arafaas Philippe Falap ko nga naan mu may loolu. ku li fay mayewul de mayewul de daa amoon sa placage ngot fekk ko ci. Arafaas kan moo ko fi gën a dëgër bopp qualifier moo ko mën moo mën fukkam foo foo foo dafa juum ah dafa juum booy bi exploité na ko de booy bi ah, exploité daa juum man maa ngi ni ñëw ñu def ko waaw lamb da ko juumul doo daanu lamb lamb du biir xëy rek wasin lamb demee noonu moo leer mais ñoom bërëg ñoom ñu ngay tudd ni tagama amoon teel lii amuru bërëg ñoom ah, waaw ba tey dama amoon aabi bërëg ñetti ñooñu ba tey weesu ba du weesu di day ay noobul ñoo leen waa léegi est-ce que est-ce que laajul est-ce que laajul nga wax ak sa nga wax ak sa management sa staff. ak ñoom dara manager waxuma ak ñoom dara entraîneur waxuma ak ñoom dara xam nga laa def. Mm. suul samay tànk rek laay liggéeyaat. jéem a yokkaat maas liggéey bu baax baax xam naa fu ma jëm ñoom ñu fa yóbbu dama fay dem ñu fa yóbbu dama fay na ku la gunge ku la gunge la ngay dem ku la gungewul la ngay dem la xanaa suñu borom la suñu borom tegee nit loxo nit mënu ci dara David jàmm ci yow jàmm ci yow yow te mon frère

Ah. fu ñu mënti daje muy yaraax yoo muy marché bees yoo saafoon teg man avancé ah, voilà kon nag man nag li ma xamal moom laa lay seedeel man li ma xamal mooy jantal booy nga gul booy nga jàmm ci yow xolal xam nañu def comme ni ma a waxoon rek ne woon naa la série dem ci benn épisode yow c'est la deuxième fois may déplacé wu ñëw seet si la mais xam naa du mujj tey lima ma indi woon ci question fii laa koy yemale yeexal mhm. pare gu ma ci yow de damay dagg-daggee bagage mais tey li ma ci question di masawu ñëpp masawu ñëpp fëgala maa lay jégalu bu baax si làmb jaajëf yaa moom loolu maa lay jégalu bu baax fëgala baax mhm. di sant nag ñëpp ñu ma jàppale si làmb ji ni as maa ngi koy sant bu baax a baax ah. as si la bu baax bamba taalibe seen set saat bu mhm. maa ngi koy sant bu baax a baax a baax Lamine mhm. Seras Assane ñoom ñëpp jàppale si làmb ji di sant sama xarit sama seex su ma genn wàll maa koy sant bu baax grand kaba maa leen sant suma ma nijaay aaya ba yer umu ñu maa leen sant su ma nijaay be sam ñu maa leen sant bu baax baax waaw maa leen bu baax baax baax ñoom mm-hmm. ñëpp sant waa mm-hmm. Thiam Pape Moïse mm-hmm. sant bu baax Iba pharmacie ñoom ñëpp sant naa leen képp ku jàppale daal si lamb ji maa Serigne Tall mhm. maa ngi koy sant bu baax Papa Tafa ñoom ñëpp dégg naa leen Mbaba Mor Sarr président mhm. yàlla suñu borom taxawoo yàlla suñu borom taxawu mhm. Mbaba Ndiogo ñoom ñëpp bu baax a baax ay moraaf ñoom ñëpp sant naa ay yanma sant naa ñëpp jigéen nekkoon si waañ bi tamit sant naa ñëpp waaw ñoom kii ne ñoom ñëpp sant naa ñoom say ñoom ay Fatou Diankay ay naw ñoom ñëpp bu baax waaw ñoom ñëpp dégg naa leen maa ngi leen ñoom ñëpp waaw bëgg naa ñëpp war a bëri di leen wax supporter bu baax di leen wax ne seen mbër mhm. seen xarit ñii seen rak la ñii seen mag la mhm. ñëpp nañ waaj xam ne làmb jeexul nekk suñu kanam di ngeen gis beneen daara bokk ak daara ñu ngi gis waajal le retour le retour de le retour de Daouda Sandwich coo jubul sëñ Fall jàmm ci yow rak ji sama gars yi l' à sa fin tey ñoo ngi woon fii ci lan Lansar seen émission après combat ñëwoon seet si Daouda Sandwich l'espoir de Lansar l'espoir de Diamaguène l'espoir de Sicap Mbao Jaksaaw seen mbër a ngi sama gars yi c'est comme j'ai l'habitude de le dire xàmmee leen ko ràññee leen ko mbër maa ngi dafa gëm boppam nekk ci yoonam mën nag li muy def mën li muy def lool lool lool lool dafa mën a bëre taxaw na cinq ans yoo xam ne daanuwul démb nag bëre na daanu instant bi li des mooy delluwaat entraîné waat ci yoon bi jëlaat beneen combat wane waat boppam sama gars yi seen émission victoire après combat fii la woon ci Lansar ma leen di joxaat dig daje ba waaw ah, maa ngi si bul bi